mbokk internet yi suivre Guédiawaye info tey ñu ngi am mbégte ak kontaan bu mag ñu dalal Diego vraiment ñu bëgg waxtaan ci situation bi nga xam ne moo xew ci réew mi ma bàyyi ko mu nuyoo grand Diego maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar euh, mhm. Bécaye. Mhm. alors maa ngi nuyu képp koo xamante ni moo ngi seetaan Guédiawaye euh, info info. Mhm. alors euh, maa ngi tudd Mamadou Diop Diego. nekk chercheur junior en sciences humaines et sociales. donc je suis diplômé de Université de Dakar plus précisément à la FASTEF donc ba gannaaw ba ma fa master de en euh, sciences sociales appliquées au développement un master de recherche ginnaaw loolu laa dem nag euh, Europe Allemagne et euh, Belgique bon Belgique ma fait sama master en communication sociale et coopération internationale waaw ginnaaw loolu nag liggéey naa fa tuuti ci ONG yi balaa Sénégal di jàngale ak euh, euh, partager suma suma expérience voilà donc euh, maa ngi déglu seen laaj lépp loo xamante ni nga wax lu am solo mooy màcc ci xam-xam bi màcc ci wàllu dundu doomu aadama social tey jamono ji ñuy waxee yow dafa am lu xew bi kaawu Ousmane Sonko ba nga ko déggee ba ban lecture nga ci ban analyse nga ci njëkk def jërëjëf Bekaay donc nekk na situation boo xamante ni moom moo inhibé sooy seet toute la presse sénégalaise ba sax ginnaaw euh, euh, biti réew hein, parce que maa ngi seetaan ci euh, benn chaîne à l'étranger ñu ci ñu ciy wax donc nekk loo xamante ni du fi góolee tam waaw et puis c'est l'histoire qui se répète donc ci gâteau, mbiru politique moo demee noonu mbiru Ousmane Sonko bi ak problème bi ñu ci wax viol donc euh, nekk na loo c'est un fait social en sociologie dañuy c'est un fait social donc en le borom xam-xam bu ñu naan euh, euh, Durkheim daf tout fait social est un objet d'étude donc lii nekk na loo xamante ne lu ñu gëstu la voilà mën nañ xool lan moo ko waral ak lan la jur.

donc donc fait social nag hein, nekk xamanteni euh ni dañ koy étudier alors xam la wax ci en en sociologie am luñuy wax la socialisation euh, primaire ak socialisation secondaire manam socialisation primaire euh ba nga juddoo ba ngay dugg école dañ lay jangal ay

mais nak socialisation boobu dafa dynamique ñu yemul benn place parce que àdduna day dox moo tax léegi pour euh mbiru massage ak salon de massage c'est un fait social ça nek lo xamanteni euh dafa exister dafa banal dafa légui bokk ci société bi waaw ah, su ma la waxee loolu ñi am possibilité massé wu dañuy massé wu massage mais en tant que massage fekk raxul loolu dañu ñëw ci kanam peut-être alors euh, leader de le leader là Sonko. Mhm. alors ça peut s'expliquer hein, mhm. sur le plan sociologique. Mhm. bi maintenant, Sonko en tant que être simple en tant qu'étudiant en tant qu'inspecteur des impôts que là Sonko ordinaire mais après il y a un Sonko homme politique Le tax dayo donc ce n'est c'est pas parce qu'il est plus beau c'est pas parce qu'il est plus intelligent non c'est parce que il imprégné imprégner ci politique. alors coow donc mu gudd politique alors euh, les meilleurs wax qui euh, euh, que comportement ça peut s'expliquer bi manam moy sank xang mang ngi la lay waxu socialisation Et naa la massage nek na lo xamanteni dafa banal léegi parce que socialisation le bokk dafa bok ci ñun maintenant ñi nga xamante am nañ as euh bëgg changer de de décor noonu la ko mën souvent nga joggé sa kër dem ci beneen environnement en sociologie moom lañuy wax c'est des instances de socio de socialisation fo xamanteni mën nga dem waxtaan yi changer air wala nga naan café wala ñu bës la wala des trucs comme ça même chose moo dal euh, Sonko. mais Sonko ka moom dafa wax ne dafa feebar ay médecins ñoo ko consulté nag il faut que muy maase. Mhm. Euh, lu gën a jaaxal ci nit ñi sax. Mhm. mooy en tant que un Sonko boo xam ne est-ce que war na mën a dem foofu. waaw loolu li ma koy tuddee c'est il a été victime de son imprudence lolo Je du euh, man ni ko jappé hein, sociologiquement parlant mom mhm. euh, dayom il s'en est pas rendu compte xam nga lolo day am c'est-à-dire y a ce qu'on appelle euh, le leadership mais dafa bëri ay Il y a ce qu'on appelle le leadership charismatique am leadership directif y ay ay ay façon leadership alors bu leadership charismatique là, c'est-à-dire que nous identifions de dañu identifier à travers sa vision l'autre tax ñu bëri topp ko et pour la plupart c'est les jeunes parce que les jeunes souvent nous soxla di surtout que les ci àdduna bi ñi dañu commencé euh, euh, la politique traditionnelle euh, arrange le génie parce que c'est la minorité agissante en philosophie euh, en sociologie la minorité agissante c'est-à-dire ñi nga xam ne politique ñoo gën mais nous ñooy gën plus jëngal alors la plupart des jeunes yi ñu ont ni euh, plus riches luy richesse ci àdduna bi ñoom ñoo akimu jeunes yi dañoo commencé am conscientisation ci Et de ce fait dañoo xaw a su ma dit, eh, les hommes politiques et ont yow avec un nouveau discours en tant que leader charismatique Nous sommes... surtout système le système bi. voilà Nous sommes... bon le système bi est ko fi même si c'est quoi que difficile parce que oh tu es un produit du système ok voilà en tant que fonctionnaire haut fonctionnaire xam nga c'est des titres qui ne mhm. donc ça fait partie du système. Et li tax nga dem inspecteur du. Euh, domaine euh, voilà impôt des impôts des domaines. Mhm. parce que dans ngaa génn école l'école ñu naan. Euh, ENA ENA. Mhm. c'est dans le système nga commencé liggéey commencé fay ko commencé dugg ci dossier ok à l'origine sax ci ay dossier la mhm. yu mu génnee gars après ñu rajo ko ainsi de suite mhm. ok alors léegi nag gars gis ci un leader visionnaire mooy li ma wax le leader charismatique mhm. benn la léegi wax naa léegi may les génie. dañoo di identifier ci ñu mel noonu du fii rek du Sénégal rek ah ci fait, bi la mun exemple Macron ak ñeneen ak ñeneen alors mais ku mel

alors yow ku ñëw tenir discours discours boobu kooku day nek espoir ci ci jeunes yooyu. maam jeunesse bi dañuy gis seen bop ci mom dañuy gis seen bop ci mom légui nak à la limite sax amna na ñoo xam sax dañuy dem ba dañ koy déifier dañ naan ki bon. voilà ça puis il tombe du ciel yaa dig wax yoy mhm. xam nga parce que ñu gis discours bu mel mhm. légui lolu euh souvent du mbag yëpp ñu ko attan Sonko attanagul loolu peut-être avec le temps lolu moo tax erreur bu def ni parce que dafa banaliser li wax sank un fait social. maa ko su la déggee mam mom euh, dafa dem ba considère mam mam doy bu ko yalla jox mom yëgu ko. Ah. dafa dem ba mam dafa dem ba jël bopam japp na mo ngi nit ñoo tolo tout à fait man rombu du foofu. ya nga so soo dégg nak mom dafa passer fi fek ni fa la né légui nak lolu li kay euh, li lay dimbali tuuti. Mhm. mooy que tu sois bien entouré. Mhm. am ñu nal ñu lay wax ni saa waay dafa li dafa li tëb tëgg ci taabal bi mais su nekkee nag yow dafa tombé nga nekk koo xamante ni sa personalité da nekk koo xamante ni xëj na di nga déglu mais doo dégg waxuma ni noonu la mel mais mun nañu ko analyser noonu su boobaa nga commencé di génn sans garde corps soo bëggee dem jëndi caaf dem jëndi caaf. parce que li ma la wax sànq socialisation dafa garaaw mooy loo xam ne la ko mooñaale da nga koy namm. mais classe bu la déggee est ce que kon analyse bi maam duñ ci mën a tiir li nga wax nii. est ce que nekkul ay ndaw rek ñoo maam xam nga wax naan mag dafa baax ci entourage. su boobaa da nga am koy rus loo xam ne soo def dara su la waxee bàyyil sax da nga bàyyi. du yow rek yaa def analyse boobu am na ñu bëri ñuy wax loolu. dañuy wax ne est ce que ñi mu ànd ak ñoom bu ñu waxee mi ngi leen dégg ndax mu ngi leen di dégg xam nga déglu ak dégg bokkut. ça n'a rien à voir mooy dire que. Hmm. ci leadership la. xam nga la sax la mën nga un leader charismatique mais mën nga nekk sa leader directif c'est-à-dire koo xamante ni doo bëgg ñu naan defal lii da ngay bëgg naan suivez moi nga yow dafa am leadership boo xam ne noonu la demee noonu leadership boo xam ne mooy suivez moi mën nga boole ñaari nag mën nga nekk leader charismatique gars yi euh, rafetlu sa vision ok gis ni yow jàng nga jeune nga am nga vision mais man nga am benen leadership bu nek ci yow moy manam un leadership directif c'est-à-dire yow bu ko kenn wax la li yow toujours yow yaay bëgg joxe la bonne direction L'autre, tamit mën na parce que li loolu mën na c'est-à-dire ñu ne ko par exemple bul def lii bul def li il n'en a qu'une mu ne waaw goudi sans garde du corps mu doxantu dank dem euh, banalement dem maasé bon euh, bon euh, si approche c'est-à-dire que euh, salon de massage salon de beauté du du centre de kinésithérapie ça n'a rien à voir alors il y a un ci loolu Il y a une fois à la rigueur mais su des fois répétitif là ça devient très banal parce que souvent les mel ni yow lu leen neex ils s'identifient à toi parce que bëgg nañ ëllëg ku comme ça ñoom un espoir bañ a effondré wu donc loolu pour mon erreur de erreur de de jeunesse la là ko mën a alors euh, xëj na aussi euh, que su Amé, la possibilité de rectifier il va rectifier mais là, mhm. peut-être nañ ci dugg dafa nekk ci milieu boo c'est un milieu politique et puis dafa nekk ci euh, ci boor boo xamante ni nekkul boor nekkul côté pouvoir côté pouvoir

loolu mën nek profit mën nek perte ci boobu ça dépend. Mhm. mën nek perte mën nek profit. Mhm. ça dépend de l'issue de l'affaire. Mhm. parce que su nekkee a euh, gars yi enquêteurs le ñu dem euh, euh, tribunal. il s'est avéré que li était tout mal deug la. suba c'est fini hein, pour lui politiquement parce que si on ci yeneen dëkk xëj na loolu du tax mu

Euh, faire partie des faiseurs de droit mm. parce que la politique c'est aussi mm. surtout que maintenant nous euh, devons restreindre parti et euh, la candidature vous voyez ce que je veux dire et puisque l'église il a un pied dedans alors nous commençons à nous. ko donc nous jar dire, xel mais à condition que nous bañ déraper parce qu'en politique un tout petit dérapage peut coûter cher à la personne les xam nga Sénégalais aussi. Mhm. gars yi complot politique la. Mhm. te ci bir complot politique bobu dañu xey gis Macky Sall guéné ben euh, euh, man man na ben ne ordre bu mu jox ci partem mhm. benn bokk yaakaar parti au pouvoir. Mais ma mutisme buñ ci def ñom maam bu ci kenn wax. waaw non mais lolu ça se comprend xam pourquoi. parce que déjà ils se regardent en chien de faïence affaire privée su amee les soo so ci dugalee mbir politique rek dañ lay dañ lay dañ lay soupçonné motax xëñ na ñoom ils ont pris pris les devants bi affaire bi amee ñu xam li c'est strictement privé. Hmm. suñ ci waxé bon euh ñoom ils s'attendaient à ce que euh, l'accusé hmm. yóbbu affaire ci boori politique. Hmm. xam nañ lolu parce que politique mo mel non ñu la def rek da ngay victimiser wu ñu soulay nañ lolu moo tax ñoom joxé euh, mo, mot d'ordre ñu né donc comme affaire privée la bu leen ci soo ci waxé rek alors ku wax feeñ quoi. waaw ci su ma ko mënee waxee noonu. mais aussi tamit lu jaaxalaat nit ñi mooy enquête baa ngi dem actuellement PV yi journaliste yi ñu ngi ciy jot lu ci même ne Pape Alé Niang démb ak dégg nañ soxna si bi nga xam ne mooy borom salon buti bi. Mhm. def na ci réaction nee moom lii ku monté la. waaw parce que mbir yooyu nag jar dafa jar tey xam nga ko mhm. parce que PV. Mhm. Euh, warul banaale noonu et puis xam nga réseaux sociaux yi. alors dafa y ay moyens de diffusion yoo xamante ne euh, nit ñi pourquoi parce que l'information euh, est très jóge alors parce que du organe habilité qui génne le PV parce que PV bi bi bi le PV réel xamuñu peut-être kenn gis ko ok alors euh, mais je ne dafa pas ce ci dire. c'est-à-dire 5 maa ngi wax

di liguel état bi mën nañ nek fonctionnaire mën nañ nek leneen ak leneen donc ci mission Macky Sall lañ nekk mission étatique mais vision Ousmane Sonko la ñu am ce qui fait que amna information yo xamanteni ni ñoom mën nañu ko jot muy jóge ñi nga xamanteni ñom ak Sonko ñu bokk visionnaire mais ñu ngi ci biir état bi so seetloo lolé li neubulé léegi dafa dafa raar ah. Mm-hmm. ngay dégg ñu ne tel document mu ngi palais. Il mu ngi de justice Il nangam dafa a en fait loolu la ci mission bi mais vision. ci mission bi lañ bokk manam mu ci gouvernement mhm. di liggéey ñu ay fonctionnaire ñu nek ci ay instances donc mais il partage la vision de Sonko comprendre le donc ñoñu. nous mhm. dangereux.

tey maanaam damay wax ne un peu situation bi nga xam ne fii la réew mi toll. maanaam mm. tension bi war nañ ko gën a wàcc ba jéem a zéro Covid 19. mais tey Covid 19 bi ngi def ay ravages nga déggaat fii politique bi mu ñëw loolu tey euh, mooy loo xamante ni fépp rek day day nëbb lépp loo xamante ni mooy phénomène social parce que politique li ma la wax la c'est la minorité agissante toujours dañuy jéemu a féete kaw. ok loolu dafa dem ba nga xam euh, population bi ok xam parce que politique moo xamante mooy loo xamante ne euh, am am ko wax euh, Jérôme Leroy nee politique avoir raison n'est rien c'est convaincre qui est tout Comprends? nga c'est-à-dire que tu, ci ci ci ci politicien euh, du am deug moo am solo c'est-à-dire nga convaincre ña ngay waxal té politiciens nak nag xam nga ñoom loolu mooy seen fort ce qui fait que euh population ñom li leen di convaincre du feebar bi actuellement ni déedéet leen di convaincre euh dëkk bi ëllëg ma mako mako maa ko yor te su ma ko yoree di nga ci gis di nga ci gis seen bopp beneen affaire bi moy Covid bi euh malheureusement les jeunes pour la plupart que nous wala comprendre ñu parce que tout simplement la communication gouvernementale modeste, parce que communication bi ñu communiquer mhm. euh, Fin quoi ko orienter a orienté orienté quoi, ko foofu ñu ko a aussi parce que communication sociale euh, dafa am ay par exemple dafa am communication en période de crise parce que yooyu dafa am spécialistes ñoo ci par exemple il y a ce qu'on appelle la mercatique sociale c'est marketing social quoi cest soo bëggee déglu wala comprendre li ngay wax dafa am ay stratégie yu teg bi maanaam nga jeunes yi parce que Sénégal sooy seet ñi jàng bariwul ñi jàng bariwul donc ñi jàngul ñu ëpp soo déggee jàng mooy jàng ba yegg niveau boo xam ne di nga mën a comprendre li ñuy wax mais jàng ba yenn niveau yi loolu tax ñu naan jàng ok alors léegi yow sooy wax ko mel noonu di ko wax mbiru Covid di ko wax waxu virus te xamoon noo koy waxee su yàggee da nga koy da koy da koy buure

da dem ci biir xëjit nañ ci waxtaan après. mooy euh, socialisation dans le monde du numérique c'est-à-dire ñi nga xamante ni ñi gën a pauvre sax léegi dañu yor ay iPhone ak téléphone xam technologie ni muy demee léegi yow ku mel noonu nga xëyaat jékki-jékki ne ko yow seeram dafa am virus. yow dem yaa ngay wax ni ay virus dafa nekk ci sa téléphone nga xëyaat naa ko yow virus moo nekk sa biir yaram kooku day perturbé wu. léegi yow li nga war a la nga war a expliquer carrément pour nit ki comprendre li nga wax lan la. da mhm. naan Covid bii. ab soj la soj bu metti nag mhm. parce que soj ñëpp xam nañu day wàlle mhm. maam yeeg ñëpp xam nañ ko mhm. da nga naan lii soj la soj boo xamante ni dafa metti yow soo seetloo sax soj même ci da nga naan man su ma sojee damay mel ne ah, nga ne aussi mais li koy li koy wàllaate li mu gën a gaaw mooy sooy wax tifli di génn xam nga soo ñandoo nga jël ñand ñand euh, mouchoir xam nga keneen ñëw ñandu ci wala nangam nangam soo expliquer expliqué noonu su yaakaar ni dañ comprendre le nga bëgg wax soo leen bëggee wax aussi dañ moytu mais doo wane télévision di raxasu ci lavabo am na ñoo xam suñu gis lavabo ci seen àdduna xam nga ñooñu kenn sóoraale wu leen. Mhm. parce que yaa ngi sóoraale ñi nga xam ne ñoo ngi biir Dakar ça c'est un problème même Dakar sax am na ñoo xam lavabo, xamuñu lavabo xamuñu gel xamuñu dara hein. mhm. donc sooy def euh, euh, publicité wala communication sociale en période de crise Fam noy mhm. c'est-à-dire mu jaral la yow soy rasu, mhm. ci ci bi ba set explique dana comprendre li c'est-à-dire japonais dañuy wax voir une fois nous gën dégg mille fois donc nous tam c'est des stratégies yo xamanteni dafa les mhm. ce qui fait que nit ñi suñu moytuwul gën di parce que nit ñi comprendre duñu di gën bëri ils s'en rendent pas compte

Euh, et puis euh, def priorité li en ce moment là mooy mbas nit ñi moytu parce que euh, jàmm amul être tal mm-hmm. alors et li on ne sait jamais ah. mm-hmm. donc nous avons fait pour mi nous mu féete bu pare mm-hmm. a mbir politique que parce que politiciens li faire affaire nit ñi di affaire alors seen une di gën a baax ñoom toppatoo wuñ population bi ah. donc euh, na nit ñi delloo ci seen xel xam ni euh, nit day juum xam nga donc l'erreur humaine et le pardon est divin donc su que dans les deux parties muy Ousmane Sonko di euh, le gouvernement képp ku ci mën a il peut se rectifier mais tout en privilégiant la paix sociale léegi nag su mbas mi demee ba féete boor. maintenant mën nañu régler seen problème problème politique comme ça euh, et puis dans le fair play bañ aussi di jalgati yoon et puis euh, jeunes aussi ñu bañ di. Euh, la masse bañ a remplacer les magistrats. Mm-hmm. parce que dëkk boo xamante ne su demee ba la mass remplace les magistrats rek coow day am donc li ma bëggoon tëjee peut-être ci dossier dossier sunk bi ak kii bi. Mm-hmm. xam nga anglais dañuy wax victim blaming. c'est-à-dire double victimisation parce que là aussi, c'est le dañ victime là mais mon loxo ma ci Si aussi une victime là mais mon côté ko teg double victimisation et dans ce cas y a un arbitré mais qui arbitré aussi si vous nit une euh, justice double vitesse bon euh, ça pose problème donc il faut qu'on se fasse confiance la justice def parce que quoi qu'on puisse dire il y a des

am solo donc euh, comme temps bi dafa xat donc jërëjëf donc lépp lu fi jub bon sunu borom la donc lépp loo xamante ni aussi safaan la ñu xam ni je suis être humain donc euh, l'erreur humaine et le pardon est divin comme ni ma ko waxee ah allah mu nekkoon jéego danañ ñëwaat ci yeneen part parce que moom ko bëgg jël mu nekk suñu consultant. Mm-hmm. waxtu bi situation yi xewee rek en tant que euh, sociologue xam àddina ni muy ci dund ak ñu ci ak merci